2019 bi. Euh, waaw Ba Cheikh comme ni nga ko waxee Thérèse Faye euh, li nga xamante ne moom moo di programme bi euh, direction générale de la petite enfance ak la case de tout petits bi ñu li ñuy def ak li nga xamante ne moom la ñu teg aussi bi mbas bi tàmbalee ñu àndandoo seetaan di. direction générale de la petite enfance et de la case des tout petits. mooy euh, agence bi nga xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci nekkin ak dundin mais ak njàng xale yi nga xamante ne euh, ñoo am euh, zéro c'est-à-dire bi ñuy juddu ba bu ñuy am juróom-benni at. Sénégal moom mbas bi bu mu fi duggee ba tey am na diagnostic yu bëri yoo xamante ne def nañu ko au niveau de la petite fance première mesure bi nga xam ne moom la chef de l'État jël mooy tëj école yi mu concerné nu Euh, ci du lu jëm ci loolu aussi ñun am na liggéey bu rëy boo xamante ne ñu ngi koy def ak suñu acteur communautaires yi conseillers familiales yi éducateurs yi pour que li nga xam ne moom mooy mbas bi ñu xool nan la ñuy sensibiliser parents yi pour ñu gën a renforcer protection xale yi parce que bi école tëjee xam nañ ne que xale yi dañuy toog ci biir kër yi donc nan la ñuy toogee ci biir kër yi loolu aussi c'était des moment pour ñu mën a expliquer waajur yi xale boo xam ne dafa tàmmoon école jékki-jékki dematul école nan la war a mën a dundee ci biir kër par exemple ñu leen di gën a renforcer ci li nga xam moom mooy fo bi parce que loolu aussi am na solo ci xale jeu bi aussi ñu développer ko moom mooy apprentissage à la maison yi aussi ñu continuer ko loolu am na solo mais ci biir loolu tamit am na li ñuy wax Euh, sensibilisation pour ñi nga xam ne ñoo gën a tuuti euh, parent yi gis nañu ko ci Covid bi ñu bëri dañuy ragal dellu hôpital nan la ñuy def ba képp koo xam ne nga waroon ñàkk sa doom nga continuer di ko ñàkki ñi nga xam ne dañoo nekk ay jigéen yu war na lor aussi nan lañuy def ba continuer aussi di def seen visite prénatale mais aussi nan la ñuy def ba vraiment euh, lépp loo xamante ne daal nekk na benn aspect de prise en charge ci xale yi Covid bi bañ a andi boobu noonu sensibilisation boobu ñu ngi koy def d'urgence Covid dañu ciblé plus de 72 000 enfants yoo xam ne ñoo nekk ci euh, case tout petit yi école maternelle yi garderie communautaire ak classe préscolaire à l'élémentaire yi pour que ñu jox leen ay kit d'hygiène kit d'hygiène yooyu day bokk ci muy ay gel ay saabu partout dans le seen dans les sept régions d'intervention du projet ñu ngi ko fay joxe loolu nag day tax ñu gën a renforcer protection xale yi mais aussi ñu defaat lu ñuy wax ay kit ludique kit ludique mooy xale bi nga xamante ne bu nekkee ci biir case tout petit bi daf daan ay fowukaay daal bu ñëwee ci biir kër gi néew ma amu ko mais xëy na euh, environnement bu mu amoon ci école bi amatu ko ci ci biir kër gi. moo tax ñu ne il faut ñu wut ay kit ludique ay puzzle ak yeneen yoo xamante ne adapté wu na seen âge pour que ñoom ñu bañ a am rupture par rapport à ce qui se faisait dans dans dans la maison. Euh, ñu ngi koy def ci sept régions d'intervention du projet euh, Kaffrine Fatick. Kaolack Diourbel euh, Tamba Matam à Dakar intervenir nañ fi ak à pour mën a cibler ñi nga xam ne ñoo nekk ci crèche yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk également ci pouponnière yi leneen li nga xam ne aussi moo mujj ci plan boobu mooy farine bi nga xamante ne en rapport avec la CLM war nañ ko distribuer plus de 72 000 enfants parce que farine améliorée bi aussi farine enrichie bi dafa am solo ci xale yi parce que xale boo xamante ne da daan am un repas dans la case des tout-petits su ko amatul te farine yooyu ak suivi nutritionnel bi ñu leen daan defaral mënatul nekk loolu je pense que moo tax ñu ne loolu aussi nañ ko def mu fekki leen ci biir famille yi donc mën naa ne bref euh, ci biir case des tout-petits programme bi ñu ngi koy développé ci contexte Covid bi donc ñun cible petite enfance lii la ñu nekk di dérouler euh, bu ñu paree nag ñu ngi waajal ubbite école bi foofu aussi dina demande beneen euh, protocole euh, pour la petite enfance voilà donc moom la ñu dénk case des tout petits euh, dénk ko itam petite enfance donc baax na ñoom ñu wax matuwaay yi nga xam ne jël nañu ko mhm. euh, pour sàmm xale yi euh, par rapport ak Covid 19 bi. voilà Baye Cheikh comme ni ñu ko waxee sàmm xale yi parce que ñoom ñooy gérer lépp loo xamante moom mooy jëm ci wàllum petite enfance comme ni ngeen ko déggee sànq donc lu jëm ci ay garderie jardin d' ak lépp loo xamante maanaam ay xale rek la soxal de 0 à 6 ans ñoom ñooy mettre développement bi nga xamante ne moom mooy gérer xale yooyu comme ni ñu ko limee donc ñoom nag dañu yàgg teg ay programme yoo xamante ne dañ ko doon déroulé donc lu jëm ci wàllu éducation santé nutrition euh, lu mel ni ay activités euh, euh, d'éveil et de stimulation ak approche bi nga xamante ne moom la ñuy wax approche communautaire bi donc bu ñuy lim ci li nga xamante moom moo di santé nutrition comme ni ma ko waxee woon sànq parce que day jëm ci xale yi nga xamante ne ça part de liir nañu donc dañuy ànd ak li nga xamante moom moo di seen waajur yi ñu leen di defal li ñu duppee euh, centre nutrition ci naka euh, maanaam dañ leen di defal li nga xamante ne parfois moom moo di ay dépistage xool xale yi euh, seen wérgu yaram defal leen ay wàllu alimentation defal leen li nga xamante ne moom moo di ay mbiru vitamine A di leen di ko jox ci seen ay lekk wala defal leen ay kit yoo xamante ne sax yoo xamante ne lu mel ni ay roog yooyu pour jàppale xale yi pour ñu mun a évoluer ci ñu mu gën a waree lunaire pour jàngal leen aussi naka nañuy yore li nga xamante ne moom moo di seen tout tànk yi lekk yi nga xamante ne moom dañ leen war a def defaral maanaam les bons aliments yoo xamante ne war nañ ko mën a jox pour permettre une belle croissance de ces enfants là euh, fii ak ñuy màgg donc nag ñoom ñu teg ay action yoo xamante ne boobu ba léegi mooy programme yi ma euh, lim léegi moom lañ doon teg ci li nga xamante ne moom moo di seen école yooyu wala comme par exemple jardin yi garderie yi comme ni mu koy waxee maanaam lépp lu jëm ci wàllu petite enfance mais bi Covid bi amee nag dañoo arrêté lu bare ci activité yooyu nga xamante ne dañ ko doon def lan la ñuy def dañuy def li nga xamante ne moom moo di euh, sensibilisation donc di jàngal xale yi naka nañuy euh, devenir propre teg ay kit d'hygiène yoo xamante ne ay saaboog gel comme d'habitude yi ci nekk yëpp euh, di ko won xale yi naka nañ ko war a utiliser naka nañ ko war a defee waaye bi ñu tàmbalee mbas bi ba tey comme ni ma ko waxee li nga xamante ne moom moo di waa Banque mondiale ñoom itam dañu def benn financement créer benn programme boo xamante ne dañ leen demandé woon à que ñu dem ci région yi parce que mbir mi rek yemul Dakar comme ni ñu ko doon waxee ne dañu déployer ay euh, jeunes yoo xamante ne wala former ay cellules ay nit yoo xamante ne c'est des coordonnateurs dem ci yenn région yi sensibiliser yi ci biir dëkk yi ci boppam euh, li nga xamante ne moom moo di parents yi ak xale yi euh, jàngal leen naka nañu war a yore xale yi côté li nga xamante ne moom moo di hygiène bi yóbbul leen ay kit jox leen ko donc lu mel ni Kolda Kaffrine Tamba Diourbel Matam donc mmh. les coins les plus reculés ñoom ñëpp dem nañ fa fi nga xamante ne moom moo di direction petite enfance boobu pour sensibiliser sensibiliser li nga xamante ne moom moo di par rapport à ce Covid là parce que mi ngi doon indi ay problèmes yu mag donc ci saytu nee nañ quand ils ont euh, euh lu mel ni. Euh, évalué du mois donc lu euh, ci lim ñi ngi toll ci vingt 6280 62000 4 62 091 enfants de 3 à 5 ans yóbbul nañ leen ay kit ci seen ay biiri famille sensibiliser famille à un tel point que xamante ne dinañ mën a xeex li nga xamante ne moom moo di mbas bi parce que d'habitude région yi ils ont de sérieux problèmes parce que xam nga ko par rapport a plateau euh, santé yi c'est un mhm. peu compliqué de ce fait baaxoon na mhm. euh, ñoom ñu dem sensibiliser pour parents yi gën a mën a def attention nga xamante ne du ñu mën a jànkote li nga xamante ne moom moo di mbas surtout que dans certains coins ni duñu ah. amuñu amuñu possibilité moo tax ils ont fait beaucoup de kits avec la banque comme ni ma leen ko waxee banque mondiale moom moo leen financé. ñu dëral programme yooyu jël coordonnateur yóbbu leen ñu dem vraiment dans les coins les plus reculés yóbbu ay kits sensibiliser conscientiser nga xamante ne moom moo di waajur yi pour ñu mën a jàppale seen xale yooyu parce que comme ni ma ko waxee c'est de zéro à six ans te xam nañu instant boobu y que les parents qui peuvent encadrer les enfants les aider à ce que li nga xamante ne moom moo di mbas boobu du leen daal essentiel. Mm. Euh, comme euh, feebar bi kenn mënul xam euh, fan la jëm ak ñun. Mm-hmm. ñoom sax comprendre luñ ci dara ndax mm-hmm. saa yi ñu xëyee am yu ci bees. ñu fagaru rek fagaru waaw ndax fagaru. waaw saju ba muy ko balaa nga lakkale moom la mm-hmm. tubaab naan mieux prévenir que que guérir ah c'est c'est très compliqué. yiñ daan def yëpp mënatuñ ko def. imaginer baali petit doom day nam nga ko heure bi daan na fekk ñuy wàcc samedi prochain. <laughs> xoolal 15 août bii passé. <laughs> mag yi ko jot a ñamoon dañu gaañu sali dara xewut ci biti xoolal yooyu te yooyu day indi ay affaire mais tey bu dul woon Covid ñëpp ci biti la ñu ne Hydrobase fees. wala Hydrobase Cendar ay waay mais cette année lépp ci biir kër yi la xewee. lu tëgg tas. ma nungu siri ma ngay gaaruwaale. waa pour info waaw ak daf may joxe. on est full monsieur. dama ko doon def exprès pour dajee ko rek. oto yëpp laa woote.